yàlla moo ñu def koor woor leen ngeen wér danoo war a sellal weeru koor gi dama ni na sell laa li nga sol tegoo ko fenn waay na sell waay ngeen di toog ci taatu garab bi fee mi di lëg nga naan koor gi meeg yow daal danga nga ragal koor ah jëmu koor daal dara nga ci amul yaa ngi nii rek ma ne ko yaa ngi nii rek man tey li ma xëddee daa bëriwul sax yow nen ni newoon ci kër am lekk ko lekk loo bëggati yow nga julli na ah, ndeysaan baax na baax na déedéet na na woor rek rek na ko sellal dégg nga boo ko sellal rek ma kontaan. ami waaw ni nga waaw nii nga def ah, jekk na de ah, macha allah waaw kay nii ma nijaay Moustapha. papa papa. Ah? tey am ci koor gi. wuy yow eh, yow yaa ngi lu muy wàññi. ah <laughs>

ah loolu xaalis bu bëri la de. après dama bëgg a. nga test def test bi ma kii ma jël la parce que déjà jël naa kii. Ah, man amul faral attends attends da ngay xaar ma kii xaaral ma jël bool bi. Ah. nga jël bool. non loolu y' a pas problème ah. ça moom. bu la ci dara dara naqari. ñun ñëpp ay danseur lañu. ok sama papa sax da doon fekk. eh booy demal demal. ah demal booy.

man mën naa ñibbi. non toogal dafa am lu ma leen wax xaaral ma indi téere bi. di ba rentrer. sama la. di ba rentrer. oui waaw. danoo a sellal weeru koor gi. ah. lii xamu leen ni jiw dafa xaram sax bu dul weeru koor. dama ni na sell laa wax li nga sol tegoo ko fenn. waaye na sell waay.